ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها قلوب لا يفقهون بها أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالذين ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعضلون والذين كذبوا بآياتنا سنست نستدرجهم من حيث لا يعلمون صدق الله العظيم تبارك الله jërëjëf Mohamed Moustapha Fall ci aayaat yu am solo yi ngi ñu jàngal ak njàng mu rafet mu ngi ko jàngee yal na yàlla wàcce barkeeb alquran ci sa kaw wàccee ko ci say waajur wàccee ko ci sëriñ daara bi nga xam ne moo sonnee ayaat yi ba mu nekk ci sa dënn bi yàlla ci mbaaxam ak ci yërmandeem yal na yàlla wàccee barkeeb alquran ci ñun ñépp ñi ci réew mi ak ñu nekk ci bitim réew yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def aayaat yi mu doon jàng yàlla dafa ciy wax safara ni mu ko bindee parapareel ko ñu baree bari ci nit ñi parapareel ko tamit ñu baree bari ci jinne yi te waxoon naa le safara ñaari xeet yi rek ñoo fay dugg malaaka yi amul benn malaaka muy dem safara mala yee ñoom amul muy bàyyi ma yi amul bu ciy dem safara waaye safara daal li ngay dégg lépp nit ña gind yi rekk la ñu yàlla bind ñoo ci gën a dëgër bopp ñu yàlla bind ñoo ci gën a néew lu ñuy jaamu yàlla ci ay jaamam yàlla nag bi mu bindee aadama bind doomu aadama yi wan a war a jaar ci moom yëpp dafa ne ko génneel ma délégation bi war a dem safara ci sa njaboot gi mu laaj ko ne ko ñaata la ñuy doon mu ne ko junne bu nekk juróom-ñeenti téeméer yaag juróom-ñeent fukk yaag juróom-ñeent yëpp safara lañ jëm ba tax na junne yu nekk daal kenn rek a ci demal jana loolu nag yàlla bu koy wax ak bu koy wane dafa bëgg wane doyloog jaamu gi koy jaamam yi di jaamu yàlla soxlawut maanaam lu ñu tuddee majorité te xam naa ne gaa yi nga xam ne dañuy xëccoo moom nekk ci état majorité rek lañ soxla yàlla nag ne déedéet su fekkoon ne ñi may jaamu ci nit ñi ak jinne yi dañoo gën a bëri ñi may moy dafa mel ni seen jaamu yi dafa may jariñ dara mais dama leen bëgg a wan ne yéen nit ñi jinne yi seen jaamu yi jaruñu ma dara mënul yokk dara ci sama nguur man dama leen a bind ngeen may jaamu pour ma jariñ leen mais jaamuwuma leen maanaam jaamuwu leen ma pour jariñoo ma moo tax kon yàlla dafa wuteeg ñi nga xam ne ñooy ay kilifa yàlla nattu leen ñi nekk ci kanam nit ñi ñu ci bari yàlla dafa leen faa jiital ci seen jiite gi ñuy bénéfice woon nit ñi yàlla nag moom nit ñi ñooy bénéfice wu ci moom mais moom bénéfice wu ci kenn looloo tax minorité la soxla ci nit ñi ak ci jinne yi mais nekkul majorité ñaareel bi tamit dafa bëgg a wane jullit dafa cher marchandise am or la jamaa la kenn du ko saam ci mbedd di ko jaay moo tax ñu néew la yàlla jox ci biir mbindeefam yi diggante nit ak jinne gëm yàlla xañ ko ñu bari kon loolu dafay wane tedd ngay jullit ni fooree gëm yàlla moo tax ba mu ne walillahi al izzatu wali rasulihi walil muminina cher googu nag gëm yàlla cher moo tax mënta nekk ci nit ñëpp àdduna jamono ju nekk rek ñi gëm yàlla ñooy gën a néew ci jamono ñi ko weddi ci nit ña jinne yi tamit ñooy gën a bari loolu la yàlla dogal nag mu ne nag préparé naa safara aménagé naa ko ba pare pareel ko lu gën a bëri ci nit ñi pareel ko tamit ñi gën a bëri ci jinne yi boo doon jël nit ñi nga leen di ak jinne yi maanaam matuñu nit ñi matuñu ci jinne yi pour cent jinne yi tamit li ñuy bëri bëri boo leen doon comparé rek malaaka yi nekk ci kaw asamaan première asamaan matuñu leen dix pour cent deuxième asamaan ak malaaka yi nekk première ñooñu matuñ leen 10 pour cent kon yàlla lim am ci ay mbindeef kenn xamut ni mu toll moo tax mu ne wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa huwa soldaaram yi moom rek a xam ni mu toll soldaaram yooyu nag ñaar ñii ñoo ci gën a doy waar ñaar ñii ñoo ci gën a dëgër bopp ñaar ñii timit ñooy ñay fees safara mooy nit ak jinne moom lay wax si nii moo tax sama borom ne wala xadd zara naa bind nañ kafiiran ñu bari minal jinne ci jinne yi wal insi ak nit ñi bind nañ leen li jahannama pour ñu war a mujj safara ñooña nag war a dem safara ci nit ñi ak jinne yi lahum aji nekk la ñaan leen xulóobun ay xol xol yoo xam ne laa na mënuñ cee déggee yàlla bi haa ca xol ya seen xol ya dafa kaste ba mënuñoo dégg dëgg wala humoo aji nekk la ñeexal leen ayunun ay bët yoo xam ne laa na mënuñ caa gisee bihaa ca moom bët yooya mënuñ caa gisee layu leer nañ wi tegtale kenn ak yàlla ka wala humoo aji nekk la ñeexal leen azaanun ay nopp laa yasmauna mënuñoo déggee bihaa ca nopp yooya ulaayka yooya gaa melokaanoo melokaan yii kal anaami dañoo mel ni ki ay juri kër ci lekk ak ci naan ak ci juddu ba li fi nekk sax hum ñoom doom maanaam doom aadama yooyu ak jinne yooyu addalu ñoo gën a sànku juri kër yi ulaay ko yooye gaa yi hum ñoom xaafilu na ñooma di way sàggan ña juri kër yi sax moo leen tene parce que mala yi lu ci mala ñàkk-ñàkk xel soo gàddoo yet jublu ko mu daw ndax dafa xam ne danga koy dóor soo yoree bool def ci lekk boo ko ko joxee mu jël dana nangu ñëw jël si la ñii nag yonentu baa nga jël yaa yonentu baa nga amee teraanga ju doy ni alxuraan ak jëmmi yonentu bi ni mu nekkee teraanga daw jubale leen ne kaa leen ngeen jël teraanga ji ñoom ñii daw teraanga ja moo tax yàlla na ñii ay mala sax ñoo leen te ne ndax mala bu gisee njariñam dana ko dawali bu gisee lu koy lor daw ñii nag gis nañ seen njëriñ au lieu que ñu dawali ko mais dañuy daw seen njëriñ gis loo xam ne dafa leen ni lor buñ ca nekkee mënuñoo ñàkk dem safara ñiy daw di jëm ca loola kon ñoom mala yeeyam niru na mala yi tamit ci juddu mala yi ak nit ñi dañoo am ndey ak baay kon ñun ak mala yi ñoo niroo ñun juddoo kenn ku ci nekk ndey baay moo tax nga juddu mala yi dañuy lekk dañuy naan nit ñi dañuy lekk di naan mala yi dañuy soxlawante ñoom ci seen biir nit ñi tamit dañ koy def léegi nag li doomu aadama wuteeg mala mooy xel yow nag bu la yàlla joxee xel te sa xel mi jëriñoo ko su boobaa mala mi amul xel moo lay tene ndax mala yi seen mbon nga ak seen sàggan gi sonnuñ ci yàllaa leen ko bindaale moo tax nit bu demee ba yem mala buñ koy xas ba ne yaa mbaama yam dëgg dëgg mbaama ko tene ndax mbaam dañ koo mooñaaleeg ñàkk xel yow nag ñi mooñaale la ak xel te sa xel moom mënoo ko jariñoo yaa ak mala yeeyam te jamono jii nag bëri na doom aadama yoo xam ne jikkooy mala lañ yore mais dañ leen solal jëmmi nit rek boo leen jëf boo jëflanteeg ñoom rek gis ne am na ci ñoom ñu yore jikko yi mala am na ci ñoo xam ne dañoo yore maanaam jikko kundu soo séq ñoom teraanga rek ñi war la am ci ñoo xam ne dañoo yore jikko yi mbaam teraanga ji jigul leen boo leen teralee ñu toroxal la am ci ñoo xam ne dañoo yore jikko yi bëy ku ñu dëkk ku ñu dëkk ak maanaam tànqal la am ci ñoo xam ne dañoo yore jikko xar ñoom bañuñu dara foo leen jubale rek ñu ne may ma tuuti ma sol sama dàll yi xaar ma ci bopp koñ bi maa ngi génn jëmuñ kon nit ñi dafa ci bëri ñoo xam ne jëmmi nit lañ yore en même temps mais boo vérifier seen jikko ya jikkoy mala am ci ñoo xam ne dañoo yore jikkoy nag ñetti baat ñaar rek ñu génnee jaasi mbaa ñu génnee paaka ne dama lay jam nag moom xamul lu dul jame kon yooyu jikko ki koy ku ko yore yaag mbaam yee yem yaag xar yee yem te boo yem ak ñoom ñoom ñoo lay tene parce que ñoom seen mbon nga sonnuñ ca kon doomu aadama yàlla da ko bind ci diggante faiblesse ak noblees man naa man naa foor ba mel ni malaaka te bu melee ni malaaka rek moo koy gën moo tax yàlla ne ulaayikumul xayrul bari ah man naa feebul ba mel ni mala te bu demee ba mel ni mala mooy yées mala parce que mala mbonam nga sonnut ca yàlla nag ne safara préparel naa ko ñii nga xam ne seen bët ya mënuñ caa gis dëgg boo leen waree dëgg tamit duñ ko gis seen nopp ya mënuñ caa dégg dëgg boo leen waxee dëgg tamit seen nopp ya duñ ko nangoo dégg seen xol ya nag amul maanaam nanguwuñoo capté dëgg boo leen waxee dëgg tamit duñ ko nangu ci seeni xol te loolu nit dana cay yegg mu ne nit ku dem ba toll foofa mbaa jinne ju dem ba toll foofa préparel naa ko safara safara nag tuddee nañ ko jahannama te moo gën a sedd ki juróom ñaari safara yi lu lu tax nga tuddee ko ko maanaam profondeur bi moo xóot profondeur safara xam nga ni muy toll doxab téeméeri at la ak juróom-ñaar fukk ak juróom boo doon dox téeméeri at ak juróom fukk ak juróom taxawuloo lu toll noonu xóotaay booba noonu la safara xóotee kon man nga wax ne safara moo gën a xóot fii ba Amérique moo gën a xóot sax fii ba Arabie Saoudi boo jëloon loolu xóotaay boobu te moo bu mooy safara bi gën a sedd yàlla ne safara boobu nag préparel naa ko ay nit ak yi jinne jinne nit nag fu leen ni alquran di tudd rek jinne lay njëkk a tudd door caa teg nit ndax jinne yi la yàlla njëkk a bind jinne yi ñoo ñu mag lu mat juróom-benn fukki junne at ñaareel bi jinne yi ñoo ñu gën a bëri bari gi ñu gën a bëri boole koog mag ñu moo tax bu ñu yàllay boole di ñu tudd ci alquran rek dafay tudd jinne door a tudd maanaam nit moo tax nga ne minal jinnati wan naasi kon tudd na foofu jinne door a tudd nit fii tamit kasira minal jinni door a wax ne wal insi kon wala qad zara'naa bind nañ li jahannama ñeel safara kathiran ñu bari minal jinni ci jinne yi wal insi ak nit ñi lahum aji nekk la ñeel leen qulubun ay xol laa na mënuñoo déggee bihaa ca xol ya wa lahum aji nekk la ñeel leen ayunun ay bët laa yubsiruuna mënuñoo gisee dëgg bihaa ca bët ya wala hu moo aji nekk la ñeexal leen asaanun ay nopp laa yasmauna mënuñoo déggee dëgg biha ca maanaam ca nopp ya ulaayika yooye gars yi daal kal anaami dañoo mel ni ki juri kër ci lekk ci naan ci sëy waaye bal li fi nekk sax hum ñoom addalu ñoo gën a sànk juri kër ya ulaayika yooye gars yi hum ñoom alxaafiloon ñoom a di way sàggan yàlla jël na maanaam li ñuy tuddee bët wéer ci gis mais tekkiwul ne ba tey gis waaye ci bët la ñuy gisee su fekkoon ne ba tey gis kay danga gis koo xam ne bëtam yaa ngi nii dara manqué wut ca waaye taxut mu mën a gis waaye ci siddiit lañuy ñuy gisee siddiit yi nekk ci bopp bi mooy alimenté bët yi ba mu mën a gis waaye nag ci bët la ñuy gisee nopp tamit noonu su fekkoon nopp la ñuy gisee la ñuy déggee kay léegi-léeg nga gis ko la gën a rëy nopp te fekk déggul dara waaye dañ kon nekkul foofa dañ cay déggee mooy mooy jumtukaay ba su ko defee tamit mu ne xol dafa am ñu jàpp ne xel ci xol la ne ñenn ñi ne déedéet xol maanaam xel ci yuur la ne moo tax ku sa yuur xas jaxasoo rek dootoo fa nekk ti maanaam ke sa sa serveur bi foofu la nekk yàlla nag dafa jël xel wéer ko ci xol moom dafa jàpp ne kon ñi aaya bi wane xulóobun laa yafqahuuna la wax waaye xol nag dafa communiqué ak yuur ñoo tax moo tax maanaam dégg gi maanaam am xelu gi ak di mën a ràññee mën a nekk foofa mu tofal ca ne yàlla am na ay tur yàlla am na junney tur ñetti téeméer yu njëkk yi téere ba ñuy tuddee zabuur bi mu joxoon daawuda ca la ne yeneen ñetti téeméer ya mi ngi ci tawreet bi mu joxoon yonentu yàlla muusa neen ñetti téeméer ba mi ngi ci linjiil bi mu joxoon yonentu yàlla isa téeméeri tur yi ci des yu manqué benn mi ngi ci alxuraan alquran andi téeméeri tur yàlla yu manqué benn yàlla nag ne man ku bari tur laa sama tur yi boo ma ci woo ma wuyu la kon yàlla dafa safaanoo ak dit nit ku ne benn jëmm nga benn tur man ngaa am nag ay dàkkantal yu bari te li ko waraloon abu jahlin moo fekk benn jullit muy julli ci biir faatiha ji rek mu tudd juróomi turu yàlla ne alhamdulillahi rabbil alamina arrahmani rahim maliki yawmi diini kon tudd na maanaam allahu tudd na rabbu tudd na rahman tudd na maliki mu ne ko yéen naka ngeen mën a waxee ne yàlla kenn la nga koy woo ki juróomi tur yi ci sa julli gi ci la yàlla wàcce ne qul ud'u llaha wa ud'u rahmana ayyamma tad'una falahul asmaul husna yàlla mooy rahman yàlla mooy rahim yàlla mooy allahu yàlla mooy malik tur yooya boo ko ci woo rek mu la loolu nag moom kenn rek moo ko jagoo waaye keneen ku dul yàlla wenn tur dong ngay am bu buñ la ci wooyee rek nga mën a wuyu wala yeneen yi ci des ay dàkkantal rek lay doon boo demee sax leneen ci mu fassiru ne ñu ne yàlla am na tour yu ëpp loola yàlla am na lu mat cent vingt quatre mille ci ay tur li mu prophète yi moo tax prophète bu nekk dafa am turu yàlla woo xam ne moom lay tëbb moo koy alimenté leer gi nga xam ne moom lay jox xeetam wi ak moom lay dundee kon yàlla am na lu mat cent vingt quatre mille ci ay tur waaye nag boo delloo ci alquran moom quatre vingt dix neuf tur moo ci nekk quatre vingt dix neuf yooyu moo ëmb turam yëpp. yene woon ca tawreet ak linjiil sa sabuur ak yeneen yeneen yeneen ya yonentu ya yore woon juróom-ñeent fukki tur yooyu ak juróom-ñeent la yonentu bi ne ku ko ku ko wattu rek boo dee dem aljana dafa am riwaaye bu ne ku ko mokkal am riwaaye bu ne ku ko takk euh, am riwaaye bu ne ku ca ñaan ci turam yooya boo dee dem aljana moo tax fexe ba juróom-ñeent fukki tur lay ak juróom-ñeent nga jàng ko ba mokkal ko xam ko lu ama am solo la ku ko def mu jaxasoog sa deret boo dee safar du la mën a lakk yàlla nañu ko yàlla defal moo tax mu ne walillaahi aji nekk la yàlla al asmaaw tur ya alxusnaa ya gën a rafet faduuhu na ngeen koy ñaanee bihaa ca turam yu rafet yooya wa zero ngeen bàyyi allazina na nga xam ne yulxiduuna dañuy jengal fii asmaa yi ci turu yàlla ya te mooy yéeféer yi bu yàlla ne aziz ñu ne usa bu yàlla ne allahu ñu ne laata bu yàlla ne man naan ñu ne man naata ñooña de sa yu gisaw na xal si na ne fayeef maakaanoo lañ nekkoon yax ma noon di ko jëf te bu ñu dee rek dem safara ñoom turu yàlla yëpp lañ ñëw soppi ko jox ko seen ay xërëm te tur yooya mën te yii dañuy yokk yii dañuy yokk dañ ci yokk dara yi dañ ciy wàññi dara yàlla ne man naan ñu ne manaat yàlla ne aziz ñu ne usa yàlla ne maanaam allahu ñu ne laata yooya tur lañ jël di ko tuddee seen turi xërëm ya yàlla ne ñooñu di jengal samay tur yi di ko jox ñeneen te sama tur yi man dong maa ko yeyoo kuñ ko tuddee kudut man daganut su boobaa buñ dee dem safara moo tax lu jullit bëgg-bëgg yàlla ak lu jullit bi xiir xiir ci yàlla amoo droit ngay jël sa doom di ko tuddee turu yàlla ndax boo ko tuddee turu yàlla la yàlla man mënu ko nga ko koy xooyee loola gàcce la boo ne ko yaay ay yaa rahmaan eewal ma rahmaan est-ce que li rahmaan man man na ko rahmaan mooy koo xam ne mooy xéewal mbindeefam yépp ñu ko weddi ak ñu ko ñu ko gëm ñu ko bañ ak ñépp loolu ko ko man ko dul yàlla boo ne arrahim nga wooyee ko sa tur mënu ko mais nag man nga jël baatab abdu nga boole ko turu yàlla comme nga ne abdurahman muy jaamab yàlla bi wala nga ne abdurahim wala nga ne abdulatif wala nga ne Abdul Jabbar wala nga ne Abdullahi loolu sax mooy turu yonantu bi sallallahu alayhi wasallam Abdullahi moom la ko alquran tuddee wa innahu lama qaama Abdullahi bu bu nekkoo ci service rek yonantu bi saa yu nekk ci service rek Abdullahi la ko yàlla tuddee subhaana allazi asra bi abdihi wa innahu lama qaama Abdullahi kon mën nga jël baatab abdu daafal ko kenn ci turu yàlla yi loolu turu yi gën a rafet la yooyu mooy tur yi gën a rafet. wala nga jël sa turi turi tuddee ko turu yenn ci turi sayduna muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam muy muhammad wala hamid wala mahmud yooyu yëpp ca turam yi la moo tax yonent bi ne gën ci tur yi ngeen war a tuddee seen doom yi mooy tur wuñ tuddee abdu daafal ko turu yàlla wala ngeen jëlee tur wa xaree ko ci turu yonent bi ne xayrul asmaa i maa ubida aw xumida yooyu tur yooyu boobu moo ci gën waaye kon nañuy bàyyi turu yàlla yii ñi koy wooyee nit ndax léeg-léeg nga gis ku ñu tuddee abdurahman gaa ya dagg abdu ja fële ne rahman duñ ca yem sax dañuy mujj ne wool ma raxu raxu ma xam nga loolu musiba la ñu ne abdul latif nga ne wool ma latif latif kay yàlla rek lañ ko war a wooyee ndax lut féetu gi nekk ci yàlla nekkul ci mel ni mbindeef mooy ñëwenti googa moo tax Cheikh na Tijaani ne turu yàlla yi nga xam ne dañ dañoo jël baatab abdu daafal ko yàlla yow nga dagg baatab abdu ba jël waa ji tuddee ko direct mu ne loolu dafa bokk ci ñaar fukk yi màbbu jëf soo ko wooyee nit ki loolu dafay dafay màbbu sa jëf di nga njëkkoon am à zéro moo tax jël nit ki di ko wooyee latif du lu sempul jël nit ko di ko tuddee ahad abdul ahad nga ne ool ma lahat fële nekkul lu simple cheikh na tijaani xeex na ci wax na ca lu bëri boo demee ci jawaahirul maani xaaju ñaareel ba dànkaafu na ci ñu bëri ne nañuy bàyyi loola ndax koo wooyee kenn ci tur yàlla la yàlla man mënu ko kon jëru ko kon nañ jël tur yi xam ne yàlla rek moo ko yeyoo abdullahi abdul ahad abdul latif abdul muhaymin bañ a jël baatu abdu booba di ko dinnaan ool ma muhaymin ool ma lahat ool ma latif ool ma nangam ak nangam kooku baaxu nañ ko bàyyi aaya ji tegu ci muy wa bi man xalaq naa ummatun yahduuna bil xaqi waxoon nañ liñ jàngoon ci semaine bi passé wa xaw qawmi Moussa jàngoon naa ko wa min qawmi Moussa ummatun yahduuna bil xaqi wa bihi yaadiluun Moussa yàlla dafa taggoon benn xeet ci xeet ci mbooloo ma ko toppoon te waxoon naa la ko ñu dëkkoon fële ca gannaaw siin bi biñ ko indee ci téere bi yonentu bi yonentu bi ne bëgg naa dem vérifier ñooñ la ñuy dund ñuy dund ñu dundee te waxoon naa la ko ba mu demee foofa ñoom amuñ marché ñu ne ko ñun soxlawuñ marché luñ bàyyi rek dañuy ñëw ci pénc mi kenn ku nekk seet lu la doy nga jël yóbbu. mu ne ana seeni armeel ñu ne ko suñuy néew dañ koy dañ leen di suul ci biir suñuy kër yi ndax duñ fàtte dee lu tax ngeen di jooy ak a mu ne ñun bu ñu amee ku dee ci ñun dañuy dañuy jooy dañuy kon ree kontaan ne comme dee na ci gëm yàlla bu amee ku juddu ci ñun dañuy jooy ndax xamuñ ci ban diine lay dee waxoon nañ la ko muy nitu jaabiq li xaw mu jaabiq li yàlla nag wan ko ne ko ña nga doon dem di leen seeti di nitu yonentu yàlla Muusaa ya ba nga yéem seen ak mbaax ak seen ak maandu pourtant ñu mel noonu yàlla defal na la ko ci sa xeet wi te ñooñu duñ fi jug ba péncam yàlla lu jamono yàqu-yàqu yàlla dana dana fi bàyyi ci xeetu yonent bi ñoo xam ne ay gor piir la ñu doon kenn mënu leen a soppi ñu dëggu la ñu doon duñ fen kenn mënu leen a nger maanaam tamit ci ci ci njub rek ci la ñuy dund ak lu jamono yàqu-yàqu mu ne ko loolu defal naa la ko ci sa xeet wi moom lay wax si nii moo tax mu ne ko mi man xalaqa naa am na ki ñoo xam ne bind nañ leen umatu ñu nekk mbooloo mooy sos nañ leen yahduuna danañu gindeekoo bil xaq ci dëgg wa wa yaadiluuna danañu yemale bihi tamit ci dëgg te loolu yàlla nga ko def ci sa xeet bi moom la yonent bi ju ñu ne laa tazaalu taifatun min ummati zahirin ala alxaq laa yadruhu man xaalafahum xatta yaatiya amrullah mu ne du dañ mukk sama xeet bi mbooloo moo xam ne du ñu dañ di nekk ci dëgg di orienté ñi ñi jëmee leen ci dëgg kenn mënul leen a xupp ba soppi leen kenn mënu leen a xëppal tamit ba soppi leen dëgg rek ci lañuy nekk ay gor yu gore la ñuy doon dara mënu leen a changé noonu nag mu ne ko kon ñëw ñi ngi doon seeti man defal naa la ko ci sa xeet te ñee moom nit ñooñu rek la yow nag fii ba àdduna buy tukki lu jamono yàqu-yàqu rek yonent bi am na am na am na ñu toll ñu toll noonu ñoo xam ne ci loolu lañu ñu ne kon nag loolu lu jara am lu jara baxi xel la walladina kaddabu bi ayatina dafay wax yàlla ni mu mënee jay nit léeg nga nekk ci lu bon yàlla jaay la rek ba nga foog ne lu bon dafa laa jikk fekk da ngay def lu bon lu bon loola dem uti beneen mbokkam nga defaat lu bon lu bon loola dem utiwaat mbokkam ba lu bon loola yëpp buñ dajee këpp ci sa kaw kenn doot la mën a suqalati waaye lu bon jigut kenn waaye danaay jay nit nag muy def lu bon mu mel ni da koo jikk muy wax lu bon mu mel ni da koo jikk muy tooñ mu mel ni tooñ da koo jikk ba yonent bi nee na yàlla danay muñal tooñkat bi muy tooñ mu koy muñal muy tooñ mu koy muñal ba bis bu ko jàppee dootu rëccati yàlla mën naa jàpp kuy rëcc déedéet waaye dafa bëgg wax ne su ma ko jàppee danaa ko mbugal mbugal moo xam ne dana rëccu lu mu doon tooñee kon nag lu dooye waar dooye waar la aaye jooju muy istidraaj dana koy am léeg-léeg yàlla dana jaye nit ci lu ne nu ne yàlla dana ko jayee nit moom lay wax nii mu ne walladina ña nga xam ne kazzabu dañoo weddi bi ayatina suñ kaawteef yi ma bàyyi leen muñal leen jox leen teraanga jox leen pouvoir jox leen alal jox leen xam-xam ñi foo ne loola dama leen koo teralee fekk déedéet de sa nastajiru dama leen koo jayee rek min haysu laa ya'lamuuna foo xam ne xamuñu ko wa um lii may muñal lahum ñeexal leen waaye su ma leen jàppee dañ xam ne inna kaydii naka sama kartan matinun lu dëgër la bi laay su ma leen jàppee dañ xam ne man yàlla am naa doole te kon tooñ ak def lu bon jigul kenn boo koy def jàpp ne dafa laa jig yàlla lay kii rek xaar rek di dagale yu bon yooye ba nga xam ne bis bu ko këppee ki sa kaw rek dana doy da nga doyal sëkk ci lu bon aay ji tegu ci muy awalam yatafakkaru bi yàlla waxee yonentu bi ne ko wa anzir ashirataka al aqrabina dama laa yónni bala ngaa lancé message bi ci ñëpp njëkk ko lancé ñi nga xam ne ñooy say mbokk mu commencé nag guddi jot mu yéeg ci jabalu safaa ñu dem màkk xam nañ ko commencé di woo mbooleem xabaayil yi nekk màkk ba nii abdul muttalib maa ngi leen di woo ba nii qurayshi maa ngi leen di woo di woo famille par famille ci guddi gi waa màkka nag ne dof gi ñu doon wax ci yonantu bi nag sotti na kii nit ñëpp dem tëdd di nelaw mu yéeg ci kaw montagne di yuuxu rek ba mel ni mbaam kii nag dofam gi ñu doon wax ci yéen nag sotti na yàlla nag dafa bëgg yonantu bi ba luñ ko tuumaal rek avant yonantu bi di satal boppam yàllaa koy setal ngir bëgg yonantu bi tuumaal nañ ko nay ne yonantu bi ku nay la munul joxe dara yàlla miimal ko ne ko li ñuy wax naan dangaa nay déedéet yow moom ku tabee tabe nga lu fanaan ci sa kër dafa guddee ñëw lu yendu sa kër dafa naajee ñëw loo am jox ko jaami yàlla yi yonent bi ñàkkutoon mais dafa demoon ba nga xam ne ñi koy laaj moo ëpp ñi koy jox su fekkee li ngay joxe moo ëpp li ngay am foog nga ñàkk mais milliardaire la woon lu ne alal ju nekk ñëwoon na ko xoolal bi mu demee bax rey ni wurus wi bi ñu ko jóoree rek bu nit toogee fii maa nit taxaw kii taxaw ca beneen côté ba duñ séenante ngir alal ju bari mais bi muy toog bi muy bi muy jug ak fi mu toog joxe na lépp ba benn dërëm desu ca kon li mu doon joxe dafa ëpp lim am toog na ren di gàtt jox ko sayyidatuna Aïcha ne ko na nga ren di benn gàtt ñi ren di gàtt ci kër gi mu jël lépp di joxe joxal fàllare gi joxal res wi ba dara desut lu dul tànk ya ak bopp ba moom rek a des ci waa këram sayyidatuna Aïcha ne ko ni gàtt bi day toll amuñ ci lu dul bopp yi ak yeel yi yonent bi ne ko ni gàtt bi day toll ñàkkuñ ci lu dul bopp li ak yeel yi ndax liñ joxe ñoo ko moom liñ liñ téye rek lañ ñàkk kon moom ñi mu doon jox dafa ëpp lim doon am waaye mosta waaye nag moom dafa nekkoon koo xam ne parce que nekk njiital diine kilifa ak diine moo jafe boo nekkee kilifa ak diine nekkul ne dangaa war a nekk buur nekkul ne dangaa war a nekk sang ci kanam nit ñi yow moo ma nekk kilifa ak diine ki yow la yàlla nattoo yaay mujj soppi mbubbam surga mi ci kër gi yaay nekk mbubbam surga mi ki njaboot gi moom la yonent bi ne sayidul qawmi xaadimuhum ki ñu jàpp ne mooy sangu nit ñi di seen kilifa di seen sëriñ ñu yaakaar ko kooka moo mujj mujj nekk surgaab ña ko yaakaar moo tax kon dafa wuteeg yeneen nguur yi danga nga ne man su ma ci nekkee damaa war a nguuru déedéet lislaam moom bu la jiitalee ba jël ay lengeem jox la ko dangay nekk surga loolu tax moom moo tax maanaam kilifteefu lislaam métti yeneen bi nag bi mu yëgee ne mooy kilifaak ñëpp moom dafa tànn nekk ci naaj wi population bi mu jiite nekk ci ker gi mu ne naa tànn nekk ci coono bi ñoom ñi nekk ci noflaay bi moo tax daana jël di joxe reer di joxe reer di joxe reer ba du am lum reeree te mënta ñàkk naafile guddi mu jël ay xeer takk ko ci biiram bi pour mën a pour mën a pour mën pour mën a naafila ñàkku reer lim joxe dafa joxe dafa joxe ñi amul reer rek ba amul lum reere daana jël di joxe dépense di joxe dépense ba du am moom ci boppam dépense sayyidatuna Aïcha ne nekk nañ ci kër naa Muhammad sallallahu alayhi wasallam weeru lëmm musuñoo taal cin ñàkkut ko de waaye bu bëggee taal rek ku néew doole ñëw ne ko jox ma te moo nekk ca kanam mu jox ko lam naroon a lam naroon a taale mu ne ko mu ne weeru lëmm nekk naa kër Seyduna Muhammad ñaar yu ñuul yi la ñuy dundee mooy tàndarma ak ndox loolu nag xam nga ni kilifa ak diine rek moo ko nangu mooy xilif nit ñi ba pare lépp di la ñëwal yow nga xeñ ko sa bopp jox ko ñi nga xam ne ñooy néew ju doole yi loolu la yonent bi nekkoon mais ku ne yonent bi dafa ñàkk déedéet yonent mos a ñàkk mais dafa dem ba lim doon joxe moo ëpp lim am moom nag mu tànn dund ak mu tànn dund ak taalibe léegi lay Omar ne ko dem nañ Kisra dem Bagdad xoolal ñoo ñooñu tey seen kilifa ya yére ya ñuy sol xoolal seen moket ya xoolal seen lal ya mu ne ko déedéet man tànn naa dund dund ak taalibe tey ma am ëllëg ma ñàkk ndax ma man di fàttaliku yàlla su ma ñàkkee danaa mën a fàttaliku néew ji doole yi nekk sama gannaaw ndax ñi ma jiite topp ma ñu gën a néew doole ñoo ci gën a bari waaye su fekkee da ngay lekk ba suur yëgoo dara su boobaa dëgg dëgg da ngay dem ba fàtte ngi nekk sa gannaaw Seydina Omar daana ko def daana dem ba jamonooy sedd jot am na yëree sedd de nañ ko ko carrément ci bitsi bi mu jàllal ko dindi yëree sedd mi nekk ci sedd bi di karkari di lox ñu ne ko lu tax mu ne population bi ma topp waroon a am yëree sedd te amuñu ko maa leen ko waroon a jox te man awma ko kon damay bokk ak ñoom coono bi ñuy dund loolu mooy njiital jullit moo tax kon nekk maanaam euh, kilifa ak diine nekk jafe-jafe-jafe moom la wax ni nag ñoom ñu ne ñu jàpp na yonantu tubi dof la yàlla ne déedéet wa maa saaxibukum bi majnun luñ ko tuumaa rek yàlla koy dàq wa maa saaxibukum bi majnun su ko defee ne moom lay wax si nii yàlla ne awalam yatafakkaru ndax ñoom dañoo xalaatut ma ne maa bi biim di nekk seen àndanoor ba min jinnatin ci benn sadun jinne in huwa déet moom illa nasir lu mu nekk waare kat koo xam ne tamit dafay bégle mu bii biinun koy aji béral ci bégle iktifaawu la ci balaaxa nasir la mais bashir la awalam yanzuru ndax xoolu xooluñu fii malakooti samaawaati ci nguuri juróom-ñaari asamaan wala ardeeg suuf wa maa xalaqa laahu ak li nga xam bind na ko yàlla min seen ci lëf waana asa an yakuna amaada ba nekk xad iqtaraba di jege ajaluhum seen diir ya fa bi ay hadisin ci ban wax baax dafoo gannaaw alquran yow mi noonu la ñuy war a gëm te xam ne sànk na ko laahu yàlla fala haadiya kenn ku koy mën a gindi la di ko ñaal wa nasaruhum dañ leen bàyyi rek yaamahuuna ñuy déng-déng fii tuxyaanihim seen ak mbewte yàlla ne yow yonantu bi ji ngi lay tiimaal dof ndax yéene gi nga yéene sa mbooloo mi la topp ak sa xeet wi jàmm bàyyi ba ñëpp tëdd nga yëg ci kaw doj yi di hoote di yuuxu ca kaw naan anqizu arwahakum min alxutam xettali leen seen roox yu ci safara ëllëg lii ngeen nekkee su ngeen ko bàyyiwul dangeen dem safara ñëw leen ngeen topp alquran ñëw leen ngeen topp li ma leen di wooyee ñoom ñu ne dangaa dof waaye bàyyi leen léegi tey ñi jeexal ci àdduna bi bu ngeen dajee ci man danañ xam yaag ñoom kat moo ci dofam mu ngi taxawal mi ngi wane kon bis penc ndax nit ku nekk boo deexee rek sa bis penc moom taxaw na nekk fii laaj kañ la bis sax jaru ko yow laajal kañ ngay dee rek man maata faqat qaamat qiyaamatuhu loolu la yonent bi wax ku dee rek sa bis penc moom taxaw na mu ne waaw ku weddi alquran looy war a gëmati ndax amul beneen téere buy ti gannaaw alquran alquran mooy téere bi mujj ci téere yi bàyyi ko ci asamaan ñëw ci jaami yàlla yi kon ku ko weddi ban téere ngay gëmaat booy xaar téere yi jeex nañ ci yàlla yi wàcc ci mbindeef yi fa bi ay hadisin ba'dahu yu'minun yàlla daal kum kum réeral sànq la bàyyi la ci maandoom ku la mën a gindi amut yàlla kum gindi ku la mën a réeral amut moo tax kuy ñaan ñaanal gindeeg yàlla rek mooy li am solo léegi tamit dañoo ñëwoon di laaj yonantu bi kañ la bis penc yasalunaka ani saati mooy bis bi ñu war a wal bufta bi àdduna bi tukki ñépp dee kenn du fi desati yonantu bi ne leen bis penc daal xam kañ la kenn dong moo ko daataarloo kenn dong moo ko xam mooy yàlla mi nga xam ne mooy rabbul izzati wal jabarut moom rekk ko xam kañ la yàllaa ko xam moo tax bi jibril solee jëmmi nit fekk yonantu bi benn bis mu toog Omar ibnu Xataab mooy nettali hadis bi mu jël wóomam ya ko ci woomu yonantu bi mel ni ndongab daara jël loxoom ya teg ko ci lupp yonantu bi sëgg ne ko damaa bëggoon nga xamal ma dara ci lislaam yonantu bi jàngal ko ko nag juróomi ponk la tudd baatu seede bi julli julli juróom xor weeru koor joxe asaka aj màkka mu ne ko damaa bëggoon yonent bi mu pare jibril ne ko wax nga dëgg omar na ñu ndey mu nañ moom mi ngi laaj di dëggal laaj ko imaan mu ne ko juróom benn doom la am gëm yàlla gëm yonentu yi gëm dekki gëm téere yi gëm malaaka yi gëm dogal bu neex ba ak bu naqari ba mu ne ko wax nga dëgg ba mu paree mu laaj ko ne ko lan mooy ihsaan mu ne lépp lu la yàlla sant nga taxawal ko di ko rafetal ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla mi la ko sant boo ca lottee nga mel ni yàllaa ngi jàkkaarloog yow loolu mooy muraqabatul kubra ak suura muraqaba nag boo ko bëggee jàngale Sénégal yi mi ngi mel ni keroog coupe d'Afrique bi xawma ma qualifi qualification bi dernier penalty boobu tabaarakallaahu ñu doon dóor nga xam ne buñ ko dóoree rek bu duggee rek ñi gañe bu duggee rek ñi qualifié biñ tegee bal bi muy arrière pour dóor ni sénégalais yépp xullee seen bët yi di xaar teewlu googu ñu teew teewloo ndax day duggam du dugg loola mooy muraqabatu loolu nag yaakaar naa buñ ko doon buñ ko doon buñ ko doon teewloo yàlla ci suñ julli yi buntu yi buntu dana gaaw a de waaye heure boobu kenn nokkiwut kenn ku ci nekk mi ngi xool waaw Sadio Mané fu muy mujj ak penalty bi day rateem day dugg loolu nag mooy muraqaba pire nag loolu nag feegi yeggoo fa ci jaamu yàlla rek xamal ne des na ci ci muraqaba te loolu la yàlla soxla ci lépp an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka léegi nag ba mu paree mu laaj ko ne ko waaw lan mooy nag kañ la bis penc jibril lay laaj bi laaj na ñetti question yonentu bi tontu ko ñeenteel bi nag mu laaj ko kañ la bis penc yonentu bi ne ko man mii nga koy laaj ëppuma la ci xam-xam ci yow mi ma koy laaj mu ne ko kon nag ndax xam nga màndarga yi mu ne xam naa ci dara mu jox ko nag ay màndarga yu bari bokkoon na ci mu ne ko boo demee ba àdduna bi nekk benn marché àdduna bi mi ngi bëgg a tukki mooy bu demee ba marché yi jege te xam nga àdduna bi yëpp léegi soppeeku na benn marché mën ngaa toog fii ci sa téléphone bi marché la ngay jënd marchandise commandé ko ca Dubaay ñi ñu wan la échantillon yi ba nga ne baax na nga dugal xaalis bi ñu yónnee la tamit marchandise bi te maanaam déplacé woo sa néeg bi nga toogoon mu ne kon bu demee ba marché yi jege loolu wane na ci maanaam mandargaay bis penc wan na ko tamit ne ko bu demee ba nga xam ne nit ku nekk liñ ko jox li ci ëpp nekkul lu man nit ku nekk poste bi nga xam ne moom la moom moom moom moom la yore ku ne xam na ne mérité wut ko li ko ko jox rek politique la ak ay pexe ak i ay parparloo mu ne ko bu àdduna bi toggee fa fantasiri saaxa su boobaa mu ñul bis pénc te léeg-léeg nga gis koo xam ne ndeysaanam dem na ba jàng am doctorat borom bag borom bag ñëw xilif ko am na léeg-léeg nga gis koo xam ne tamit entreprise bi mu jiite surgaam yi ñoo ko ëpp xam-xam ci mën a doxal mbir mi kon nag mu ne ko boo demee ba nga xam ne isa usnidal umur ila gayri ahliha fantasri saa bis bu ñu demee ba jël mbir yi jox ko ku ko mérité wut ci lépp rek xamal ne àdduna baa ngi bëgg a tukki mu ne ko bu demee tamit ba doom yi di dëngee seeni waajur yi waajur yi mujj am ci seen doom yi complexe ba mel ni seen doom yi ñoo leen yilif àdduna bi tukki na mooy maanaam doom yi di yónni seen bàyyi loolu nag yegg nañ ci yu ci bëri tey seen doom yi nekk mu nekk ay moodu moodu mën nañ laa woo ki seen numéro yooyu am lu ñu la dugal ne paa bi man de damaa amoon soxla bëggoon nga dimbale ma ci da nga ciy sawar sax ne sama doom ji de moo ma yónni nangam boole koog nag kontaan ci lool dara taxul lim am dara rek a tax waaye doom ju amul dara bu yónnee baayam baayam saaga ko waaye doom nag bu amee dara di ci jox papaam lu mu ko doxloo ci service paa ba kontaan boole koog di ca bàkku sax sama doom yéen ma soxla damaa bëgg dem doxi soxla ba léegi xam naa ñoom dañoo xaw tàng soxla lim am dara rek a tax. kon bis bu ñu demee ba toll foofa adduna bi ngi tukki mooy doom yi mel ni ñoo ilif seen yaay yi dem ba mel ni ñoo ilif seen papa yi adduna ba nga bëgg a tukki mu ne ko bu demee ba njaaloo bëri adduna bi nga bëgg a tukki bu demee ba fen bëri adduna bi mu nga bëgg a tukki wax na ko ci mandarga yu bëree bëree bëree bëree bëri mandarga yooyu nag daanaka yëpp teg nañ ci suñ bët même yoon néeg yonantu bi sax ca mandarga yi la bokk ndax euh, bokkoon na ci mandargaay bis penc ñëw mu jëg yonantu yi ndax yonantu bi comme bu ñëwee benn yonantu dootul ñëwati loolu dafay tekki na àdduna ngi bëgg a tukki moo tax dafa daan wax ne fi ma yónnee ak fi àdduna bi tukkee mi ngi mel ni sama ñaari baaraam yi mu joxoñ baaraam bi muy taaye ak baaraamam nday bi mooy bii ni mu sutee bii noonu la àdduna bi toll ci tukki li ci des kon loolu xam nga li ci des kon moom bëreetul léegi nag kon mandarga la ci mën a joxe mais kañ la exact yàllaa ko xam moom lay wax si nii moo tax mu ne ko yasalunaka danañu lu laaj ani saati ci bis pénc ayaana mursaaha kañ la teeram ba xul wax leen ne innama ilmuha naka xam ak dëkk ak bis penc inda rabbi nekk na sama borom laa yu jëliha du huñil li waxtu yaa ñeel waxtoom wa ilaa wala dul moom bis penc mii ngeen di laaj nag faqulat tiis na fi samaawaati juróom-ñaari asamaan ñooñ ñu nekk ci juróom-ñaari asamaan tiis na ci ñoom ba ci asamaan seeg boppam sax wala ardeeg suuf waaye maa ngi leen di xamal ne préparé leen ko ndax laa taatikum du leen dikkal illaa baxtata lu mbetteel yasalunaka ñu ngi lay laaj ka annaka ba mel ki yow bu la neex nga ne yasalu ñu ngi lay laaj xanaa ci bis penci ka ba mel ni ki yow xafiyun aji xam nga ci bis penci xul wax leen ne innama ilmu annaka xam ak bis penci inda rabbi mi ngi sama borom walakin akthar naas li gën a bëri ci nit ñi laa ya'lamuuna xamuñ loolu kon bis penci kañ la yàllaa ko xam bokk na ci yim daataar loo am na ñu ne xamal na ko yonantu bi mais bu ko xamalee yonantu bi tamit yonantu bi moom xamalu ko kenn ndax bam ne kon jox nañ ma xam-xam yi way njëkk ak way mujj lépp nga ca utiitu ilmal awalina wal axirin kon loola xam-xam yépp nga ca waaye nag bis penc mii ngeen di laaj asamaan si sax yàkkamti wut ko ndax buñ ca yeggee dana daanu xar bi diw yi daanu jant bi daanu suuf yi ngeen di wax yàkkamti wut ko buñ ca yeggee montagne yi danañu raase géej gi dana ñu mujj ñiis moo tax kon yéen li ngeen yàkkamti ba di ko laaj asamaan ci boppam sax tiim leen ak suuf si ngeen dëkkee yàkkamti wuñ ko yonent bi yàlla ne nag ci mbetteel rek lay ñëw yonent bi firi mbetteel ga mu ne bis penc buy taxaw danga fekk ñaar ñu fekk ci marché ñiy waxante benn yére ba ñu juboo ci 2000 francs kii yëkkati 2000 di joxe kii di jël tisi ba àdduna bi tukki mu ne dana yegg ci nit ku dem tabaarakallaahu dem ci géttam jarga yi ratt meew yanu këll ba yóbbu këram ba ne damaa fas yéene reer ci bay defar meew mi pour sotti ci cere ji àdduna bi tukki foofa kon xeetu jëflante bu ne nit dana ko jëflanteek moromam ca la muy liggéey rek moment boobu nga nekk ca rek adduna bi tukki kon laa taatikum illaa baxtatan moo tax fu ñu leen waxati ne kañ la àdduna bi tukki ñu ne àjjuma ji di ñëw rek jëratut ko maanaam bu ngeen yeboo euh, bu ngeen yeboo maanaam kontaan xam ne du booba du bis bu ñuy séentu ci mbetteel lay doon waaw bu ñu maanaam àjjuma ji di ñëw bu del see ba del seewaat wala nangam ci lay àdduna bi tukki déedéet àdduna bi moom buy tukki dafay nekk mbetteel ci ñëpp ñëpp dañuy xëy rek gis jant bi fenkee fi mu doon sooyee jant bi nag bis bu xëyee fenkee fi mu doon sooyee bis boobu moom du sox bis boobu moom du sox mukk moo tax nag yonent bi nee na bu àdduna bi tukki tamit ñu gën a yées ay mbali rek la fi fekk nit ñu bon nit ñu yées nit ñu dëgguwut nit ñu mën a kàcc nit ñu mën a mooy yàlla loolu xam nga ne mi ngi ami jeexital kuy gis loola yaa ngi koy gis ku ku kenn ku ne wallaahi boo nëbbul sa bopp xam ne sa bàyyi la gën sa baay mooma timit maama ma ko gën sa maama ko gën kenn ku ci nekk tamit loo bon bon bon fi jamono tollu tey fu mu nii mën naa wax ne yaay yaay tene sa doom yi sa doom yooyu tene seen doom yi moo tax bu àdduna bi tukki ay mbali rek la fi fekk ay ay asraar loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ndax li mag ñi jomboon tey ñun jombuñu ko ni mag ñu dëggoo woon ni ñu maandoo ni ñu ragalee yàlla ak jom ji nekkoon ci ñoom ak mën a muñ gi ak sutura soosu nekkoon ci ñoom genn wàll genn wàllaatem nekku ci ñun boo yeboo dàq leen a jàng boo yeboo teel leen a mokkal alquran soo yeboo ëpp leen loo leen di julli soo yeboo ëpp loo dem yoonu màkka terewut ni seen xol yi mel genn wàll genn wàll ga sa xol bi melu ko loolu la yàlla dogal moo tax kon nag loolu moom mi ngi togg di ñëw par benn léegi nag ñoom ñi ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéeféer yi nu ne ñëwee nañ ko yonent bi ne ko comme yow dangaa wax ne xam nga xam-xamu fàddu xam-xam bu fàddu yow yàlla xamal na la ko dañoo bëgg nga wax ñu man marchandise mooy dox ren ñi mën koo jënd stocké ko bu demee ba marché bi neex ñi mën koo jaay ak nga wax ñu ren bu yàlla ji tawee ban suuf mooy ëpp naataange ñi mën a dem foofa uti fa ay tool xam nga loolu waxi dof la yow daal wax ñu daal tisi yi comme dafa war a yéeg ñu jënd ci wax ñu su fekkee dugub bi dafa war a yéeg ak mboq mi ceeb bi dawlin ji ñi jënd ko stocké ko buñ xaaree nangami mois fekk maanaam mu mu yokk ñi mën koo ñi mën koo ñi mën koo jaay yonent bi ne loolu su ma ko xamoon man kenn kenn du ma ëpp alal kon kay damay seen marchandise mi gën a dox rek ma jënd ko stocké ko su ma bàyyee ba heure ba jot rek ma jaay ko nekk milliardaire mais ni ngeen ko réeree man noonu laa ko réeree moo tax kon nag moom mosta woote ak xam moo waaye waaye tëréwul sax moom xamoon na ko yàlla xamal na ko ko mais mosu koo woote moo tax muy wax si noonu moom lay wax si nii moo tax mu ne xul wax leen na laa am liku mënumaa bijjël li naf si ñeel sama sama bopp nafaan njariñ wala mënumaa dàqal mooy jañal ba tey dara lor li naf si ñeel sama bopp ilaa maasaalu lu soob yàlla wala kunt bu ma nekkoon ah mu di xam xëy ba lu fàddu kon la sa kasartu danaa koo bëril danaa bëri rek tëgg gi dafa gàcca danaa bëril minal xayri ci alal cey su ma xamoon lu xew ni marché bi doxee suba su ma xamoon ni nawet bi war a doxee déwén kon man danaa nekk ku bëree bëri bëri bëri alal kon am na ci yoo xam ne di ko wax te ñëwagul fooy mujj ci gàcce rek daa ñëwagul nga naan nii lay demee nangam ak nangam nii lay demee ñu ko fi doon wax yépp am nañ gàcca kon mbir mi même boo ko xamee sax danga ko war a nëbb secret kenn du ko weer yi boo ko weeree rek yàlla weer la bu la ko yàlla xamaloon nëbbu ko ñu bëri da ngaa war a suturaal yàlla dangaa ngaa war a da war a sant yàlla bañ a publier loolu mu xamal la te fekk na am na ñu fi bari ñu fi nekk te xamuñu ko ba fa nekkee na di wax lu ñëwagul nii lay demee nii lay demee boo ci xeggee gàcce rek léegi-léegi moo xam ci bëri bi léegi-léegi moo xam ci élection yi léegi-léegi moo xam ci leneen ak leneen ak leneen waaye ku ca dugg rek ci gàcce ngay mujj moo tax kon yooyu mbiram moomu nañ ko bàyyee yàlla yonent bi lim koy xam-xam buñ ko ko laajee mu ne man xaw ma ca dara ngir rek suturaal yàlla ci lu bari ñi yar tamit noonu la leen yaree tey ku mel ni Xusayfatu bnu Yamaani yonent bi xamaloon na ko mbooleem kuy naafiq ci madinatul munawara woo ko ba mu ñëw te saxaaba yi la bari bari moom kenn rek moo amee woon listib naafiq yi ne ko diwa ngi ni julli sama gannaaw mais naafiq la diwa ngi ni danay dem xare mais naafiq la ba naafiq yi jeex ci dëkk bi moom kenn kese moo ko am waaye gis nga ni leen yonantu bi yaree ci secret bu doon tey ñun ñi nga xam ne garde secret dafa jafe koo ci wax secret day mel ni biiram bi day daw dana toogee nu ne pour rek mën a mën a mën a fexe ba joxe secret ba rek waaye moom nag ba loolu mosta wax kenn mosta wax kenn ne yow naa feq nga xam nga ni mu xataab daana toog sax ba ci kanam woo ko ñoom ñaar ñi wéet mu ne ko yow la yow la yàlla yow la yonantu bi jox eh, liste bi naa feq yi dama lay laaj ngir yàlla ndax sama tur nekkul ci biir ndax ñoom luñ baax baax xooluwuñ seen bopp mu ne ko loolay xomar dangaa baax rek waaye lii nag yow rek laa ci yem ndax wax nga ma ko benn yoon ma gànt la nga waxaat ma ko ma gànt la troisième fois bi nga ñëw yow mënu laa gànt waaye maa ngi lay xamal na sa sa tur nekkul ci liste bi ma yonantu bi jox waaye nag duma ko wax kenn yow rek laa ko yow laa koy xamal na xem fii dañoo maandu mu jiga xomar dafay wax ne man ni may xamee naafiq rek buñ ko tëralee war koo jullee ma jë ma gis Xusayfatun Yamaan yi sawarut ci jullee gi rek joxe ngànt ba du fekkee jullee gi rek ma xam ne waa ji naafiq la mu jigi man noonu lay xamee naafiq yi kon secret yombut secret garde ko lu jafe-jafe la rawatina ci suñ jamono ji yonent bi loolu la yaree doomam garde secret noonu la yaree ay sahabaam xoolal sayyidatuna Fatima bi yonent bi feebaree feebar bi nga xam ne moo ko yóbbu àllaaxira maam xalifa ne fukki fan ak ñeent la ko tëdd Fatimatu ñëw di ko seet si mu déey ko ne ko sama feebar bi duma ci jug damay génn àdduna nangami fan moo ma dese ci àdduna bi Faatimatu jooy jooy metti métti yonent bi ko déey ko ne ko nag kaay ma bégal la su ma génnee àdduna sama njaboot yépp ci soxna ci doom yaay ki may njëkk a fekk si te moom mënta teqalikook baayam mu ree kontaan waaye nag dee ñaari dee yi kenn déggul ko ñoom ñaar rekk comme nit ñi dañoo bañ kumpa ñu ñëw ci moom di wut information mais lan la la sa papa déey ba ngay jooy ak lum la déey ba ngay ba ngay ree mu ne sekkal la sama diggante moom kenn du ko xam bi papaam génnee àdduna lu yàgg moom ba muy bëgg génn àdduna ci la ko door a wax nekk dafa ma wax ne feebaram boobu du ci génn du ci du ci du ci mucc day dem àllaaxira mais xamal na ma ne man maa koy njëkk fekk si moo tax bi yonent bi génnee àdduna six mois rek la sayyidatuna Fatima dund fekki baayam juróom weer waaye da ngay seet bi ko yonantu bi ne ko feebar bi duma ci jug damay génn àdduna bu jëloon xibaar boobu mu publier ko balaa yonantu bi génn àdduna ba yëpp dee ndax booba bëgg giñ bëgg yonantu bi mënuñ koo muñ moo tax am na ci ay xibaar yoo xam ne soo ko waxee rek publier ko rek tukkal nga àdduna bi kon booy jox xibaar jox ko ko am secret waaye jamono jii nag moom secret moom dafa jafe dafa jafe lool borom xam-xam dañuy wax ne secret bu bu bu paasee ñaari nit rek siiw yow mi ko xam ak ki nga ko wax bu xasee yegg foofa rek siiw kooku dana dem wax ko téeméeri nit ne ko yow rek laa ko wax kii wax ko téeméeri nit ne ko yow rek laa ko wax na fi yem ba mu yegg waat ci yow ne waaj a defoon dafa dafa war a xëy dem ñibbi moom nag oto la war a ñëw ci village bi rek bëgg a ñibbi Dakar am ku ñëw ne ko dama bëgg nga yóbbu ma mu ne ko waa dinaa la yóbbuwaale mais na yem ci yow mu demaat keneen ñëw mu ne ko nayam ci yow ba mu xam ne nombre bi yegg na mais affaire bi mujj na dëkk bi yëpp bëgg a ñibbi ku ñëw ne ko damaa bëgg dégg naa da ngay ñibbi suba damaa bëgg nga yóbbuwaale mu ne oto bi fees na nag parce que juróom ñi mu ko wax jàpp ne fees na kooku kuñ dajeeg ne ko paa bi kat day ñibbi suba man man ngaa dem pour mu yóbbuwaale la loolu nag tey moo yàq suñ penc mi ci lépp te loolu kenn mënu cee mucc léegi léegi aaya ji tegu ci mi ngi wàcc ci sayduna aadama ak xawaa suñ maam aadama bi ko yàlla wàccee ci suuf mu bàyyi ko ci asamaan àdduna bi li muy yaatu yaatu mook soxnaam rekk ñoo fi nekk di nit li fi des yëpp ñi ay mala lañ mala yi nekk yi ay bukki yi ay tan yi ay gaynde yi ay mbaam soxnaam si ëmb mu ragal ne soxna si bu bu lim ëmb bu ko imbee comme dafa dëkk ak mala yi nit nekku fi dafay ragal doomam ji niru mala yi xam nga ñaareel jigéen bu ëmbee lu muy faral di gis rek mu koy miin ci biiram bu yàggee rek bu juddoo doom ja mën naa niru loola léegi nag mu ragal ne man sama doom ji ma ëmb comme benn doom aadama nekkut fi maag sama soxna kese te fu mel ni nekk na jigéen te moom bi mu ëmbee ba léegi ay xar lay gis ak i bëy ak i ay bukki ak i gaynde ragal naa rek bu muccee doom ji dana niru ci mala yi benn Iblis comme yàq yàqkat la mu profitoo ñëw ne ko sa doom ji boo bëggee mu juddu boole ko dund te bu dundee du niru benn mala da koy tuddee Abdul Xaarisi Iblis dañ ko tuddee Xaaris mu ne ko kon tuddee ko Abdul Xaarisi Abdul Xaarisi nag mooy tekki jaamab Iblis bi mu pour bëgg koo yàqal ni mu ko yàqalee woon ba mu génn aljana ba mu ñëwee ci suuf tamit tekkiwul ngembam dafa continuer bëgg koo yàqal waaye xam nga ab yonantoob yàlla yàllaa koy yàllaa koy protéger. mënoo fexe ba yàqal ko waaye bi mu ko ñàkkee yàqal timit yàqal na ay doomam doomam yi mujj nañ bokkaale yàlla ki seeni tur sëtam yi da nga fi gis koo xam ne ñu ngi koy tuddee lan ñu ngi koy tuddee maanaam euh, turu xiram abdul sanam am na ci yaa ngi ko ñu tuddee ci euh, abdul manaaf manaaf turu xiram la yooyu yëpp ñu jël seen tur yi seen te tur baatab abdu di ko daafal jëmee ko ci xirim mbaa ñu tuddee ko iblis waaye aadama boppam moom dund na ba génn àdduna mos ta xelaat bokkaale mbaa mu koy def bokkaale gi na yàlla wéeral na ko ko moom ak soxnaam wax leen wax ne ñoom ñaar ci bindin mi waaye da cee namm ay sëtam waaye namut ci aadama boppam ndax léeg-léeg bàyyi def dara ñu jël jëfi bàyyi ji askane ko doom ji léeg-léeg doom def dara ñu jël jëf jëf ji jëfi doom ji askane ko baay ji loolu day am ci alquran moom lay wax si nii moo tax sama borom ne hoo moom la fii mooy buur ba nga xam ne moo tax mu ne su fekkoon ne xam naa lu bëri lastakasartu dinaa bëri li mu ne xayri ci alal wa maa massa nii du ma jot a asuu ak ñàkk mbaa feebar in ana déet man illaa nasun mekk aji waare wa basiru ma nekk kuy bégle li xaw ma ñeel nit yow ñoo xam te ne ñu gëm yàlla huwa moom yàlla moom ma gëm la si mooy buur ba nga xam ne xalaqakum bind na leen mi nafsin ci bakkan waaye ditin bay benn muy aadama wa jaala sos na min ha ca bakkan booba sawjaha soxnaam sa muy xawaa li yaskuna ngir na dal ilayha jëm ca moom falammaa taxa falammaa falammaa taxashaaha ba nga xam ne dikkal na ko ñi ànd booloo xamalat ci la ëmb moom soxna sax xamlan ab ëmb xafiifan bu oyof mu am ëmb bu ndaw waaye ci biir ëmb boobu ay rab rab lay gis fa marat romb na bihi ak ëmb ba falammaa asqalat ba nga xamee ne diis nañ mooy soxna sa diis na daxawaa lañ ñaan laaxa yàlla ñoom ñaar muy xawaa ak aadama ku ñaan rabbahuma seen borom na la ngeen aataytanaa boo ñu joxee wallaahi saalihan doom ju mat sëkk ju mat niru nit amewul melow mala la nakkoon nan na nakkoon danañu nekk mina shaakirin di bokk ca way sant ña falamma aataahuma ba nga xamee dikkee na leen saalihan doom ji mat sëkk jaala la doomam yi def doo firi ñaar de wax na jaala ñoom ñaar ñoo def de la woo ñeel ko sirkan bokkaale déedéet jaala doomam yi def nañ gannaawam la woo ñeel yàlla sirkan ak bokkaale fa fii ma ataahuma ci la nga xam jox na leen ko fa taala jomb na laahu yàlla amma yusriku li nga xam ñu ngi koy bokkaale amma yusrikuuna ji moo lay xamal ne ñoom doomam yàlla waaye duhut duhut maanaam duhut ñoom ñaar jaala tasniyaay lisim la waaye bi mu ñëwee ci ammaa na fexe lu juróom la def muy tekki mbooloo kon du du ñoom ñaar de ñoom ñaar mënuñoo bokkaale yàlla mais doomam ya yàlla wax doomam yi ne ay yusrikuuna ñax dañuy bokkaale maa laa yaxluqu loo xam ne mënul bind say an dara wahum ñoom sax yooya yaxluquuna yaxluquuna def na bindeef leen wala yastati'uuna mënuñ lahum ñeexal leen nasran dimbale seen bopp mënuñ leen a dimbale ci ñeneen i bokkaale wala yansuruun mënuñoo dimbale sax an anfusahum seen bopp kon looy bokkaale koo xam ne mënul dara yow yaa koy yett mu nekk xërëm ne ñumm dara mënu ko boo ko bëggee déplacer yaa koy yanu kooku boo ko bëggee remplacer yàlla mi la bind di la wërsëgal di la rey di la dekkil dëgg-dëgg juum nga yàlla palaasam ba moom rekk ko fees koo fa teg ku dul yàlla rek mu vidd moo tax kon nag doomam yi ñoo def loolu gannaawam waaye nekkul aadama ak boppam ak sayyidatuna Hawa mii soxnaam nit ñu baax lañ ñoom nag par par ñaari doom lañ daan ëmb waaye ñaari ñaari séex la ñuy doon séex góor jigéen ñaar ñi nga xam ne ñooy seex duñ mën a dencante bu seexee ren bu dewee déwénee mu seexaat léegi nag dañuy sélectionné seex yi seex bu góor bi la ñuy jigéen bële jël jigéen bii boole ko góor bële bi mu ñëwee nag àtte boobu moo doon seen charia moo bam nit ki mën naa takk ku mbokk ak ndey ak baay ndax booba nit ñi nekkuñ fi te nit ñi mënuñoo bari lu dul dañuy sëy noonu la doomi aadama yi sëyee léegi nag xaabil yàlla dogal moom ki mu séexandoor ak ñaaw lool Haabil ki mu seexandoor ak rafet mu ne moom seexandooram bi lay jël ah xawaa ne ko kii kon aadama ne ko loolu mënta am sharia bi da koo tere mu ne ko déedéet soo ma koy xeeñ dafay fekk ñun ñaar nekk fi aadama dem Makka mu rey mbokkam mi muy Qaabil rey Haabil ni ko alquran waxee ba mu ko reyee ci la aadama ñëw ci yoon wi gis jaww ji soppeeku njëkk loola poussière mos ta yëngatu ngelaw am na mais poussière du yëngatu xobi garab yi mosu ñoo nekk lu doon daanu xob um, caf ngay garab yi mosu na nekk lu soppeeku lii nekk lu forox li nekk lu weex ci la aadama gis nag jaww ji ni mu soppeekoo ak kulóoru maanaam meññant yi mu ne taxayaratul bilaadu wa man alayha maanaam daal suuf soppeeku na am na lu xew ba mu ñëwee nag ci la fekk ndeke xaabil rey na xaabil mu laaj ko ne ko an sa mbokk ma mu tontu ko tontu bu bon ne ko ndax danga ma koo dénkoon ba ma koy laaj booba nag da koo ji dóor xeer deret ja sotteeku bu njëkk ba deret boo ko sottiwaan ci suuf suuf dafa koy lekk waaye keroog ba mu ba xaabil rayee xaabil mu laaj ko ba mu ñëwee gisul màndargaam deret la aadama ñaan ci la suuf commencé di garder deret ba bis ni ki tey boo rendi woon ab gàtt da nga gis deret ji dafay nekk rek moom da boo ñëwee rek gis ko foofu la soqee ko nag xaabil nag de mu ci daw dem yaman di jaamu safara ci la nekk ba dee waaye boo ku def lu bon lu bon dana ñëwaat sa kaw mu mu jëg dundam dafa silmaxa bi mu silmaxee benn doomam romb ko doomam jooju romb ko sëtam di ko wommat sët bi ne ko ah sa euh, papa sa papa ngi nii de te moom ku ko romb mu sànni la xeer bi mu ko waxee loolu rek silmaxa bi di doomam profito jël xeer sànni baayam bàyyi ja dee mu ne ko ah papa rey nga sa papa di mu pes ko mu dee moom tamit <laughs> maanaam moom rey na papaam ci ci ci ci xeer rey doomam ci pes mu daan wax ne xataltu ibni maanaam biram yati wa qataltu maanaam euh, ma kon kon qataltu abi bi ramyati wa qataltu ibni bi latmati mooy rey naa sama baay ci xeer ci saan rey naa sama doom ci pes kon moom comme moo rayoon mbokkam moom tamit dañoo mujj rayaat ko moo tax kon képp kuy def lu bon tamit lu bon rek moom ngay fayekuwaat ci lu bon loolu nga doon def kon nag ñu doon jaamu xërëm yi loolu la yàlla wax ak ñoom yàllay wax xërëm ni mu feebulee nu mu ñàkkee nu mu doxadee mënul dara mënul boppam dara yow nga koy jaamu xoolal xiram ak nim ñàkkee solo yow moom la yàllay wax nii mu ne xiram yow a in tadoohum bu ngeen leen wooyee ilal huda jëm ci njub laa yatbookum duñ leen topp sawaawun aji xemoo la alaykum ci yéen a daxawtumuhum moo xam woo ngeen leen am antum wala yéen saamituuna way noppi ngeen ne li sin daal gaa yi nga xam ne tadoouna yéen a leen di jaamu min doon laay tadduhut yàlla ibaadun ay jaam lañ am saalukum comme yéen fadoohum na ngeen leen ñaan ci seen soxla seetal ba xam fal yastajibu danañ mën a huyu làkkum ñaan duñ ko man in kum in kum ne nekkeen saadiqeen di way dëggu allahum ndax dafa leen a ñeexal ñoom xërëm yi arjulun ay tànk yam suuna yu ñuy doxee bihaa ca moom am nañ tànk mais mënuñoo dox am lahum ndax dafa nekk ñeexal leen ay din ay loxo yabti suuna yu ñuy ngëbee bihaa ak moom am nañ loxo mais mënuñoo téye dara am lahum ndax dafa nekk ñeexal leen ayunun ay bët yub siroona yoo xam danañu gisee bihaa ca moom déedéet am nañ bët may gisuñ dara am lahum ndax dafa nekk ñeexal leen asaanun ay nopp yasmauna yu ñuy déggee bihaa ca moom déedéet mënuñoo dégg dara kon nag lu doo da ngeen woo surakaakum seen i way bokkaale ba leen yonent bi waxee la ñu ne ko danga nga torox ci toroxal gi ngay toroxal suñu xërëm yi mu ne woo leen seen way bokkaale yi su ma kii du topp na ngeen ma fexel falaa tunsuruni bu leen ma muñal man faalihuma seen xërëm yi inna waliya naka aji méngoo sama allahu mooy yàlla la si mooy buur ba nga xamee ne sa la moo wàccee alkitaaba téere ba wa huwa moom yàlla moomu yata walla mooy méngoo saalihi nañu baax ñi wala si na ñi nga xam ne tadduwoona yéen leen jaamu min doon yi te duhun yàlla laa yastatiwoona attantuñ nasrakum dimbale leen wala yeen soroon mënuñoo dimbale sax anfusahum seen bopp wa in tad'uuhum bu ngeen leen wooyee ilal hudaa jëm ci njub laa yasmaw duñ dégg wa taraahum yaa ngi leen di gis yansuruuna ñu ngi xulli seen bët ya ilayka jëm ci yow fekk waxum ñoom laa yubsiruuna gisuñ dara kon gis nga xërëm yi ñoom ay istati lañ fexe nañ ba defal leen ay tànk mais mënuñoo dox tànk dox lay jariñ mais mënuñoo dox fexe ngeen ba monteel leen ay ay loxo mais mënuñoo téye dara fexe ngeen ba desee ci seen jëmm ji na ngeen ko tabaxee ay nopp mais dégguñ dara fexe ngeen ba defar leen ay bët ñu ngi xulli mais xool mënuñoo gis kenn ku mel noona yow boo koy jaamu torox nga ba leen yonent bi waxee nii nag ñu ne ko ah yow da nga torox ci di ngay toroxal suñu xërëm yi mun a yéen a seen xërëm yi doole ju ngeen am yépp ñëw leen jox ma ko sëf ma ko man faali huma leen man yàlla mooy méngoo sama mbir te képp kuy ku baax yàllaay méngoo mbiram moo tax gàllaaj gi gën a wóor mooy baax rek fexeel ba baax nekk ci yow te muy lu wér baax moo ëpp solo lépp si Ahmed Tidiane si almakatum dafay wax ne maanaam fexe ba xar baax maanaam fexe ba def baax moo gën maanaam xar baax fexe ba def baax moo gën xar baax baax bu xasee nekk ci yow lu la nit fexee rek yàlla këpp ko ci kawam ndax yàlla ne huwa yatawalla saalihiina ku baax ku ne yàlla méngoo sa mbir te yàlla ku méngoo sa mbir kenn mënulaa laa toroxal su ko defee nag mu ne seen xiram yooyu dañ leen a jéem a dimbale te moo mënuñoo dimbale seen bopp sax kon nag mu ngi mel ni ah Xasan Diouf mi ngay wax ne foofu la ñuy yem dañoo tardé lu bëri ci waxtu wi bu ñu fi yàlla indee suba ñu commencé ci xusil afwa wa amur bil urfi mooy aaya joo xam ne moo gën a jege moo gën a dagale ci alquran makaarimul axlaaq muy tedd ngay jikko ku la dagg nga jokk ko ku la xeeñ nga jox ko ku la bëgg ku la bañ tamit nga bëgg ko loolu nag ku baax rekk ko man waaye jikko yooyu mooy jikkooy sang jikko yooyu mooy jikkooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy nekk suba suñ suñ bopp dar su ci kartanal yàlla lu ci leer yàlla la lu ci lëndëm gàtt xam-xam ak ñàkk fasaax la yàlla na yàlla defal ñu tawfiq ak taysiir tey nag tabaarakallah dañoo am gan goo xam ne moom ci daara ji dëkk ci daara ji la dëkk ci jikkoom ci daara ji la dëkk tamit ci jëfam mais tamit ci daara ji la dëkk ci turam laaw muy xalifa Ababacar Sall monsieur le maire mu ngi nii toog ci mbaaxam ci woyof sopp daara ji sopp ñooñ daara ji